Aly Ngouille am na droit nekk candidat am na droit am ambition tout ça mais ni mu defee affaire dafa ñaaw. ah bon. Mmh. cest ah, mais Macky Sall tànn la parmi seize millions de Sénégalais na le ministre de l'agriculture ok ngeen nekk ci benn liggéey boo xam ni dañ dañuy tànn ki nga xam ne nii moo war a nekk candidat yéen ñëpp ngeen signé ni d'accord ngeen. ku président tànn d'accord ngeen ci ngeen signé ko ñëpp signé yaa ngi dégg ngeen waxtaan ci ba juboo ci jour bi président tànnee nga dem bind ni démissionné nga mun a loolu je trouve ça inélégant wala bu la tollee noonu avant ñuy tànn démissionné nga demal sa bopp bu la nee dans tous ngay dem loo loo loo fay xaar ñuy tànn voilà da ngay avant nga dem mais yow yaa ngi associé ci benn processus ba processus bi jeex nga xëy si ba tànn même jour nga annoncé sa démission te gars yi fii nomination ministre boo gisee gars yi ni ñuy sonne pour ñoom xaw ma sax dara lu ci nekk mais ni ñuy sonnee pour ñu nommer leen <laughs> ak ni ko jàppee est que tu comprends. maanaam président saalam day jàpp ni ku mu ko defal teraanga la defal est-ce que tu la bëgg a wax nga jël affaire bi xalab ko ko doon ci kanam xaw na xaw na metti tout cas bon cela dit a le droit nga affaire aussi politique comme li waa ji wax rek du diine du xam nga bëgg na nekk candidat na nekk candidat. d'ailleurs il est je, voilà. je rectifie il est il est candidat il a retiré voilà. ses fiches de de parrainage. léegi xoolal affaire bi. na ñëpp ñëw def seen offre politique Sénégal ay tànn.